daa leen jàmm mbokk yi internet yi ñuy safoo di seetaan suñu ti TV tey ñu ñu àddu wax si demub ki xam ni moo di Gabrielle Kane foofee ca Touba mbake ginnaaw boobee nag mu daal di jur ay coow yu bëri ñu ëpp si askan wi di ko attaqué di ñaawlu bu baax a baax dem bi nga xam ni dem na ko foofee ca Touba ba dem ba sukk si kanamu Serigne taxa Mbacké ñeneen si askan wi di ko rafetlu te di ko défendre bu baax a baax ndax moom mii di Gabrielle kan am na droit ngir dem foofee ca Touba Mbacké bu dafa dem ngir tuub ngir jégaluwaat bu baax a baax ñaawteef yi nga xam ne mi ngi ko doon def waaye ñi nga xam ni nag ñoo di ñenn si askan wi si seen i kàddu reen jaaxal moo di moom Mady Gabrielle Kane ana nan la def ba am audience ngir mën a gis ki nga xam ni moo di Serigne Mountakha waaye nag demam foofee ca Touba mbake moom Mady Gabrielle kan li nga xam ne yóbbu na ko fa moo di ay conteneur ay conteneur yoo xam ni suñ ko ma mi ngi war a toll si 67 million yoo xam ni def koo baaxee waa ki nga xam ni moo di Gabriel Kane lan moo tax askan wi di naqaru bu baax a baax gisee bi nga xam ne gisee na ko ak Serigne Mountakha Mbacké moo di kat moom mii di Gabriel Kane ñaawteef yi nga xam ne jot na koo def si biir Sénégal dem sax bay saaga ay doomu aadama takat moom mii di Gabriel Kane nekk benn jigéen boo xam ni bépp jigéen bu baax bëgguta mel ni moom ndax a benn féministe la féministe mooy koo xam ni en tout cas saa su ne day jug di xeex ak ak yelleefu jigéen ñi ngir kat bépp jigéen mën di dund ni mu ko neexee si àdduna nabi ba tey sax su la neexee ñoom jigéen ñi ñu bañ a gëm benn diine boo xam ni daf leen di tënk ñu mën a am liberté boo xam ni dañuy dund dund bu neex si àdduna bi moom mi di Gabrielle Kane ba tey bokk na si kàddu yoo xam ni doon na ko yëkkati doon contre sart yi nga xam ni islam moo ko tegoon si góor ñi nga xam ni ñu war am benn jabar ba ñeenti jabar moom mi di Gabrielle Kane nee na loolee àndu si benn yoon te mënta comprendre góor ñi nga xam ni dañuy mën di am benn ba ñeent jabar yooyee kàddu ginnaaw ginnaaw bu mu jibee ñu bëri doon si attaqué ay attaqué yu métti ba ñenn si nit ñi sax jàppee woon ko nit koo xam ni dafa jug ngir xeex yi nga xam ni moo di bépp diine bu mën di doon fii ni si Sénégal moom féministe bi di Gabrielle Kane nekkoon koo xam ni dañ ko ràññee bu baax a baax si dossier Sonko ak Adji Sarr nekkoon koo xam ni daf ko doon défendre bu baax a baax ñeel ki nga xam ni moo di Adji Sarr te doon attaqué képp koo xam ni yaa doon ànd war nga doon ki nga xam ni moo di Sonko waaye nag dem bi nga xam ni moom mii di Gabrielle Kane dem na ko foofee ca Touba mën nañoo jàpp ni sax dara nekku si si kaw bu doon dafaa dem ngir tuub bu baax a baax ñaawteef yi nga xam ni mi ngi ko doon def ak ay kàddu yu ñaaw yi nga xam ni mi ngi ko doon yëkkati di ko jëmale si doomu aadama yu bëri kon boobee dem kat mën nañoo jàpp ne dara nekku si ndaxte dafaa dem ngir tuub ngir yeesal yi nga xam ni moo di jéppalam foofee